akdaara yàllaaw mu ni maa ngi doore ci tudd yàlla sama boroom moom yàlla nag laay waxal ni ko ig nii na ma fegal al akdaar nëx-nëx ya yàllaahu yow yàlla safil ah, sellalal sama des ci àdduna bihi ci darajay kon yanantu bi alayhi salaatu salaam fii ka ci yow yàlla lii ñeel ma yàllaahu yow yàlla yaa man laa lamru yaa man laa sarika li tax ma la koy ñaan yaa man yow yaay ki nga xam ni lahoo ñeel na ko al amru mbir yëpp yaa man yow mi nga xam ni laa sarika lahu amoo sociétaire kenn du la jàppale kenn nuru la wasi wa maalik waadlix fiika yàllaaw wasix nag ma yaatalal wa malik nag ma moomalel wa atlix nag ma boyal fiika ci sa nguur gi yàllaahu yow yàlla wajaatuka alyawma yaa rahmaanu murtajiyan jubale naa la sama lépp bis ni tey man sëriñ Touba yaa rahmaanu yow yàlla mi yor xéewalu jaam ñépp murtajiyan tamay aji yaakaar ci yow fawsi bi ma sirtu fi dunya ka yàllaaw ni mbàkke looy yaakaar mu ni si sama texe bi ma sirtu ci nim ma soobe fii dunya ka ci sa àdduna bi yàllaahu yow yàlla anta rahimu la si arjo bi rahmati yow yàlla yaay aji xéewale ji xéewale ëllëg say jaam yow mi nga xam ni yaakaar naa sa yërmande allahu laaqiya duran minka yàllaaw maa ngi yaakaar yàlla bu ma dajeeg benn lor bu jóge ci yow yow yàlla sama borom malik yamini wa xalbi suxla ya maliki yow yàlla koo moomale mbir mu moom ko kon na nga moomale sama ndijoor bii nanga moomale yow yàlla miy aji moom ji lépp tey aji buur bi ci lépp sama xol lépp lu ma lay laaj bilaa isaabin bi joodin milka yàllaaw te bu ma moomale dara àndaaleeg di ma regle nang ma moomale ci lu dul regle te nga defal ma sag tab gu bàyyikoo ci yow yàlla xadarta siriya yaa xudoosu li tax ma jaaxal ñëpp xamuñu sama secret yaa ko sellal yow yàlla koo sellalal secret kenn du ci xam dara yaa sellal sama secret yow mi aji sell ji ma àndaaleeg di la gërëm aniwaan karaditu dara yàlla ma ànd ak di la gërëm nga ànd ak di ma gërëm yow yàlla gërëm naa la giiru dund yow yàlla anta salaamu la si salamta kulli yamin yow yàlla mi aji jàmmal yow yàlla mi nga xam ne ku am jàmm jàmm yaa ko may maa ngi lay ñaan sa nga jàmmal ma yow yàlla yaa bi nafsi bi tayil milka yàlla te nga musal ma ci sama ayibi bopp defal ma ko nag ci tay mooy ci taxañal ma ko jox ma ko yow yàlla wabilmuhayminu li sat bi tirayi kama almuhayminu daa bokki turu yàlla yi mooy ki nga xam ni dafa présenté wu fépp la not dara ëmp ko dara du ko échappé maa ngi lay ñaan ci tur woowu yow yàlla nga seereel ma eh, yow yàlla jaxasoogu ma jaxasoog lépp lu la neex xat nga seereel ma ni jaay naa jaay naa sama lépp jënd ko yow yàlla sa mbóot sa secret ba keroog may tàbbi aljana anta al-aziizul aziiz abqi bi izzati yow yàlla mi nga xam yaay aji tedd maa ngi sàkku ci yow ci sa teddange gi isan yuxallidu li takrima yàllaaw teddange goo xam ni dafa may béyalal daf may saxalal lépp luy xeetu teraanga yow yàlla ajbartali nakal jabaar duna li xam yow yàlla mi nga xam loo jàng mu jàng maa ngi lay ñaan nga jangal ma yow yàlla mi nga xam yaay aji jangal lépp di aji jagal lépp maa ngi lay ñaan ci lu dul daje sax kulay mboolem samay noon nag laa bëgg nga jangal ma leen ba duñ ma mënal dara yow yàlla mi nga xam ni di yaa ma tànnal lépp loo xam ni moo ma kafaytani kulla si kibrin bila kulafin fegal nga ma képp koo xam daa am ak rëy ci lu dul benn condition kon maa ngi lay ñaanaat nga fegal ma yaa mutakabbirul tal kulla yàllaawu yow yàlla mii aji màgg ci lépp nag nga xam yaa ma tàggatal lépp yow yàlla yaa xaaliqal xalqi li xuluq maa abadan yow yàlla mii aji sàkk ji mbindeef yépp maa ngi lay ñaan nag kon yow yàlla na nga ma sàkkal lépp lu ma neex rek nag ma ko jox bilbisri wa safi wa ridwan yàlla te may jox na ànd ak sa mbégte na ànd ak ak sell na ànd ak sa ngërëm yaa baari alxalqi xulli nafa duna azam yow yàlla mi aji fent ji àdduna tey aji sos ji mbindéef yépp maa ngi lay ñaan nga wommatal ma sag njariñ te ñoo du ànd ak benn lor waxudul yàlla jëlal jannaati yàlla maa ngi lay ñaan na nga ma wommatal mboolem yool ak pay ak salaire joo xam day juge fii ànd ak man ba biir aljanna antal musawiru xalil li nabi bu saran yow yàlla mi nga xam ne yaay niral ku la neex sa jaam yaa koy melal nu la neex maa ngi ñaan ci dara daraja yanantu bi nga daal di saxal ak mbégte ñeel ko wasawiran li yadunal makri yàlla maa ngi lay ñaan tamit nga daal di may ñoŋalal sama lépp ci lu ànd ak benn pexe yow yàlla xabartali ku la san bin xarataytu bi jaam bu ne day indi bàkkaar su fekkee indi naa bàkkaar yow yàlla nag ma jéggal mboolem bàkkaar bu ma indaale jëla la li sabbi sukriya yaa xafaaru yàlla yow yàlla seereel cant gu ma la cant yow yàlla miy jéggale bàkkaar ku la neex xaarta yi rabbi abdaay bilaa sababin yow yàlla yaa ma notal samay noon yow yàlla sama boroom ci lu ànd ak benn sabab min yamituka yaa xahaaru yàlla kon war na ci man nag ma lay gërëm maa ngi lay sant yow yàlla mi aji not sa jaam yépp waa may nga ma yow yàlla jóge ci yow li ma doon laaj loo xam ni féete na kaw sax la ma doon laaj falaka sugriya yaa wahaabu yàlla kon ñeel na la sama cant man xaadimu rasul yow yàlla mii aji mayaakoon bi la man laaw dafa am fanweer ñett yu sëñ Tuubaa araamaloon ci boppam te daganoon na ci moom nag waaye yépp moo ni maa ko bàyyi ngir jox ko sama boroom ci xeeti lekk ak xeeti naan xeeti nelaw xeeti wokkatu xeeti gestu yépp la bàyyi ba muy fanweer ak ñett mu ni nag yow yàlla wommatal nga ma nag njëgu loola ma bàyyi woon muy lajj laj jiim ci 33 yu ma bàyyi woon yow yàlla mi nga xam yaa yor sama dund yow yàlla wommatal nga ma sa wërsëg wi nga xam du jeex yow mi aji wërsëgal ji ubbil nga ma bépp bunt boo xam ni ni nga ko daan ubbile sa gaa yu baax yi ubbil nga ma ko na nga daan ubbile say bunt say wàll yu yàlla yooyu ubbil nga ma ko yow yàlla mi aji ubbi ji léeg-léeg ñu naan jàmm xamul dara ci xaybu bu la yàlla xamalee nga xam nee na yow yàlla yaa ma xamal sa xaybu ba ma xam li nëbbu jaam yi xam naa ko man sëñ Tuubaa mujj naa di ko yeewu ci say mbir antal alimu la si alamta yàlla li tax nag ma wax ko mooy antal alimu yow yàlla yaay aji xam ci nga xam ni umpale woo dara mi nga xam ni nag xamal nga ma yow yàlla xabalta ya xaafidul yow yàlla mi nga xam ne yaa ngëb lépp ci sa loxo di aji ngëb ji ngëbal nga ma lépp lu warul daal koy wiññi ba mu dem feneen fudul man li xayri naawi yakalak daar yàlla bi nga ngëbee yi dul noonu yépp da nga koo wëlbati mu dem ci feneen fudul man niki nëx-nëx yi basata yaa baasitul amaala lii biridan nee na yow yàlla ñoddi nga yow yàlla mi nga xam yaay ñoddi mébét yi ñoddil nga ma samay mébét àndaale gërëm ma faskur mu baasatati daaray ni yàlla kon yow yàlla na nga ma santal mboolem li nga ma ñoddil àdduna ak alaaxira xafalte yaa xaafidul daali wa ma daw nee na suufeel nga yow yàlla ñépp ñi nga xam ne samay noonu lañu ba mujj nañu suufe ñoom ñëwee yoon ñépp li xëy naawi bi xafdin min ka yàlla ñu jëm ci feneen fudul sama wàll yow yàlla mi nga xam ni yaa ma defal ak ak ak ak suufeel joo xam ni suufeel na samay noon jóge ci yow rafata yaa yow yàlla mi aji yëkkati yëkkatil nga ma àdduna ak alaaxira sama martaba képp koo bëgg a suufeel da ngay mujj di wax saf xorom bi nga yëkkatee sama daraja nag dootul ànd ak ma suufe ci dara loolu nag yaa ma ko defal ci sa ngëneel yow mi dul jeexal dara yow yàlla yow yàlla yaay aji teral ji nga xam ni yow taqoonaa ak sa teddange xilam mooy san way ban fii ka yàlla ci laa nekke di sa xarit boo xam ni ku ñu teral la ku ñu ku ñu sopp la fii ka ci yow yàlla antal musilu la si sallat li sati yow yàlla yaay aji daaneel ak toroxal ku la neex dina toroxal ci sa teddange alinsu wal jinnu wa saytaanu yàllaaw bu la neexee nit jinne ak seytaane ñépp toroxe ci sa tedd nge anta samiu la yow yàlla aji dégg ji nga xam ni lépp ngay dégg yow mi nga xam ni déeyante naak yow ci giiru dund wa bil masaaraati li xat jutta yàllaaw bi mu ko defee nag ci nga ma wommatal mboolem yu nekk yoo xam dafa may bégloo yow yàlla anta albasiru lati li xaada jumlatama yow yàlla yaay aji gis ñi nga xam ni dara nëbbuwul ci yow yaw mi nga xam woomatal nga ma mbooleem la nga xam ni lixtarta dunia wa uxra minka yàlla woomatal nga ma mbooleem la nga ma tànnal ci àdduna ak ci àllaaxira bàyyi koo ci yow yàlla anta lasibu lasi xad iktabaytu bihi kon nag xakamta yaa xakamul baax yi bi kaw ni fawzi bi maa xaaba min busraaka yàlla xakamta yaakimul xakamta xerañe nga yow yàlla mi aji yaa xakamul baaqi yow yàlla mi aji xerañ ci lépp tey aji des bu fi ñépp jógee ci nekk gu ma nekk xakamta yow yàlla mi aji xerañ ji ci lépp tey aji des bu fi jaam ñépp faatoo ba jóge fi yow yàlla moomu xerañe nga ma ba ma nekk boroomuk xakamta yaakimul baaxi bi kaw ni za fawzin bi ma xaaba min bushraka yàllahu xakamta yaakimul baaxi bi kaw yow yàlla mi nga xam ni ko xereña mu xereñ yàlla dafa nekk aji xereñ ba pare di xereñe jaamam nu mu ko soobee moom yàlla akamta yaa yàlla su fekkoon dafa xereñ ba nopp te xaralewul kon bu jën génnee ci biir géej kenn bi jaraat ñu jël jën di ko xorom fawsi bi ma xaaba min busraaka yàlla yàlla sàkk géej géej xarale la ko sàkke waaye xereñ a tax mu fexe ba jën génn ci biir géej géej saf sàpp ak xorom te bala ngaa lekkaat sa jën xoromaat jën wi fi jóge loolu day wane xereñu suñu boroom xarale daa am xereñ am mu ni ko nag xakkam ta xereñe nga yaa xakkamul baax yi yow yàlla mi aji xereñe ci lépp tey aji des bu fi ñëpp jógee ci laa nekke man sëñ Tuubaa di boroomuk texe ca la nga xam ni moom nga ma tànnal ci sa mbégte yaw yàlla sama borom faati bi ma xaaba min busraaka yàlla kon nag atalta yaa adlu aada bi xayri liqan wala diraarin wali qad kunta yàllaaw nërmeelal nga ma samay noon yëpp ba ñu ba ñu mat sëkk jarul sax may rencontré ñoom yow yàlla yaa ma leen nërmeelal anta latifu la si qad xutali abadan ci lu àndut ak benn lor yow yàlla danga maa nekkal waaye yaay aji ñeewantal ji nga xam ni wommatal nga ma ba faw lutfan ajiban yasidul fikra yàllaaw ñeewantal ju yéemee yéeme joo xam day dolli sama xalaat ci yow yàlla yow yàlla yaa aji deñ ji nga xam ni fexe ba ma jàkkaarloog sa li nga deñee kumpa ci lépp waxu tali nga ilmal tam jóge ci yow ilmul xay bi ilmul xay bi mooy xam-xamu yi fàddu yow yàlla yaay aji am ji sago yaay aji lawet ji nga xam ni daqal nga ma lépp loo xam ni lépp loo xam ni gërëmoo ko yow yàlla dàqalam nga ma ko mu dem ci keneen ku dul man giiru dund yaay aji màgg ji nga xam ni feeñ na sag màgg ji nga màgg yow yàlla lii ko tafadilan asi man min ka womatal nga ma sa ngëneel yow yàlla ngëneel gu màgg màgg bàyyi koo ci yow antal xafuuru la siili xuta maxfiratan yow yàlla yaay aji jéggale say jaam num la soobe yow yàlla nag wammatal nga ma sa njéggal maa dayoo bi raditu an ka yàllaaw faral nga ma samay ayib samay sikk ci lool nag ci laa la gërëmee yow yàlla dasakooru la si kulli la day karidan nee na yow yàlla yaay aji cant gi nga xam ni nag sama lépp ci yow ngërëm la sakarta jami asay yàlla yàlla sant nga mboolem samay jëf ci sa nguur gi antalaliyu la si alaytani abadan yaw yàlla yaay aji kawe ci lépp yaa ma yëkkatil sama lépp ba faaw bi xayri makrin wali alalta yàlla sëñ abdoulaat nee na bari pexe nekk ci dëkk da koo gën a wóor kon nag li ma defal samay pexe taxul yow yàlla yaa ko man yaa ma defal loolu si sans pexe antal kabiru la si banat kabaratu Oh. yow yàlla yaay aji màgg ji nga xam ni feeñ na sa màgg gi ci jaam ñépp di xotamin ka kabiral ajri yàlla wommatal nga ma jóge ci yow mm, pay goo xam ne yool goo xam ne aji màgg la yow yàlla yow yàlla yaay aji wattu aji peeg ji nga xamante ni nii dëgmal naa sama lépp jox la ko ba faw dina jëm ci feneen fi dul sama wàll ay noon ak i lor yow yàlla antal muqiitu la fii a raqadan yow yàlla mi nga xam ne yaay dundal ko la neex yow yàlla mi taxawal ko la neex di dëgëral ko la neex yaw yaa ma defaral mu sax sama xéemém téef bilaa isaabin ilal jannati yàlla ci lu àndut ak benn regle nag ba keroog may tàbbi biir aljanna mhm. antal asiibu la fii xadik tafaytu bi yow yàlla yaay aji nag wattu aji peek ci lépp yow yàlla yaa ma feg fege naa wala boog doyloo naa ci sa jëmm ji walif may wuti leneen yàllaaw walif may wuti ji ku ma fegal samay noon wala ay lor wala ay coona yem naa ci yow yàlla nga fegal ma lépp antal jalilu lasiisa xat jalaalatu yow yàlla yaay aji màgg ji nga xam ni mànge na ci yow sa màgg ji màngal na mu jëm ci feneen fudul sunu wàll noon ya ci àdduna ak ci àllaaxira yow yàlla antal karimu lazi xaqutali karama yow yàlla yaay aji tedd ji nga xam ne wommatal nga ma sag tedd nge dunya wa yàlla nga defal ma ko ci àdduna bii nu nekk defal ma ko ëllëg ci àllaaxira àndaaleeg mbégte yow yàlla anta raxibu lazi baanat siyaanatu yow yàlla yaay mooy aji fuglu ji nga xam ni feeñ na fàng sa sange gi nga ma sangel yow yàlla kuliyati an siwa ridwani yàlla sange goo sangel sama lépp ba du dem ci lu dul sa ngërëm yow yàlla anta almajibu lasin xaadat bi xayri anam yow yàlla yaay aji wuyu sa jaam bi nga xamante ni wammatal nga ma ci lu àndut ak benn coona ijabatun minka lii lixtarta yàllaw ak wuyu goo xam ni daa jóge ci yow ànd ak li nga ma tànnal wa innaka alwaasiul baaqi wali abadan yow yàlla miy aji yaatu ji lépp nga xam sa dara tuutiwul yow yàlla miy aji des bu fi lépp jógee yow yàlla yaa ma defal ba faw yaa ma defal ak yaatu gooma yaatalal sama mbir àndal ak boyal ma daal may mbaa yàlla antala kii mu la si allaxtani li si waa yow yàlla yaay aji xerañ ji nga xamante ni boyal nga sama lépp masaani wa ma awtasu yàlla ba du ma jëm ci lu dul loo xam ne lu ma neex rek lay doon waaye lu ma naqari du ma dëgmal fegal nga ma tam lépp lu warul antal wa duudu rasin xaadat mawaadatu yow yàlla yaay aji sopp ji aji cofeel ji nga xamante ne nii wommatu na sag cofeel lii sarmadan birida wal xurbi yàlla ñeel ma man xaadimu rasul ba faw àndaaleeg sa ngërëm ak sag jige anta almajidu lazi baana majaadatu yaay aji tedd yow yàlla di aji màgg ji nga xam ne sag màgg ak sag tedd nga feeñ na xultali min ka majidan faaxa yàlla wambatal nga ma jóge ci yow sunu boroom loo xam ne ak tedd nga lay doon joo xam dafa féete kaw way nakal bàyyi sul mubqi bila dararin yow yàlla mi nga xamante ni nag yaay yónni say jaam yaay dekkal say jaam yaay desal sab jaam yaa ko fi dindi yow yàlla ci lu ànd ak lor kafaytani jumlatal akdaar fegal nga ma mbooleem lii ay nëx-nëx yow yàlla anta sayyidul asin qaadat yow yàlla mi aji seere ci lépp nga xam ni wammatu na sak seere lii bi tiraayika minni saaka yàlla àndaaleeg sama jaxasoo ak yow yàlla sama borom yaa xulisat yow yàlla mi aju dëggu ji yow yàlla seereel nga ma ak dëggu koo xam danga maa fegaaleel mboolem loo xam ni lam tardali mudlaxan bil fadl yàlla fegal nga ma mboolem loo gërëmul yow yàlla lu mu ci doon ci sa ngëneel yow yàlla antal wakiilu lati xadik tafaytu bi yow yàlla yaay aji wéeru ji nga xam ni ku wakiilu ci yow du daal du daal daanu kon yow yàlla wéeru naa yow yàlla walif may wuti leneen fii dafi wal jalbi yàlla fii dafi wal nag ci bu may ñot mbir wala ma koy jiñ ci yow yàlla lay wéeru yow mi nga xam yaa moom mbindeef yépp antal xawiyu la si xawaytani biridan yow yàlla yaay aji dëgër ji nga xam ni dëgëral nga ma lépp ak ngërëm fii sirri wal jaari yaa sal am ni yàlla ci lu nëbbu ak ci lu feeñ àndaaleeg may boroomuk nag dégg kóolute yow yàlla anta almatinu lati yow yàlla yaay aji dëgër ji nga xamante ne nekkal nga ma ci sama mébét la tuwaajiu lil makru yàlla mukk lépp loo xam lu ñu sib la ngir yow yàlla antal yow yàlla yaay aji méngoo sama mbir téyel ma sama lépp moo tax duma sàkku man sëñ Tuubaa ku la remplacer ci loolu nag ci nga man nekkale ci dara darajey nii ma wakkiloo ci yow di ma wóoluloo ci lépp mbir antal amidu la si wajatali ni ama yow yàlla yaay aji sant ji aji gërëm ji nga xam ni dëgmal naa sama lépp jox la ko ci xéewal bilaa xururin wa xayril makri yàlla nga daal di jubale say xéewal jox ma ko ci lu àndut ak woru ci lu ànd ak benn pexe yow yàlla mi aji fas di aji takk mboole mbindéef fi dara échappé wu la ci ñoom ak mboolem mbir yi. mu ni yow yàlla nag fegal nga ma loru mboolem li nga takk ci sa nguur gi dara du la échappé yow yàlla. yow yàlla mi nga xam ne yaa sos mbindéef yëpp yaa fexe ñu door yow yàlla moom nga xam ni du la dëgmal mukk ma la uhibbu raditu anka yàlla lu dul rek sama cofeel jëm si ci yow àndaaleeg ma lay gërëm muy doomada aw dil xutali karaman yow yàlla mi nga xam ne yaay matal ab dëyal yow yàlla moo moomu gërëm naa la yow yàlla woo matal nga ma sa tedd nge kulli saarin wa yawmin fii ka yàlla ci bépp weer ak ci bépp bis ci yow yàlla muy bi xayrin ayaatin abadan mu ni falaka sukuri bi safil umri yallaaw waaw baamu waat ko muy bi xayri ayatin juttali abadan baamu waat ko dama réer bay balaa gisatul <laughs> muy bi xayri ayatin juttali abadan waaw demal tuuti ma xool muy bi xayri ayatin juttali abadan falaka sukuri bi safil umri yallaaw waaw bisimila mu miitu xat suxta mawti lil xidda walawum Mm-hmm. makaari suqta fii daa rey yàllaaw waaw mu miitu yow yàlla mi rey ku la neex nga xam yaay dundal yaay rey yaay rey wommatal nga ma sama dee joxal ma ko ñi nga xam ñooy noonu yàlla yi makaari suxta fi daarayni yàlla ñeel na leen tam mboolem yi ñu sib yow yàlla wommatal nga ma mboolem nag yi ma bëgg ci àdduna ak alaxira yaayom di wa sugri mari daayamam yow yàlla mi aji dun te doo faatu yow yàlla moomu sama cantu xol ak sama cantuk ngërëm àndaaleeg sama cantuk jëf boole naa lépp jox la ko yow yàlla ak ngërëm ya xus doona suxtin min ka yàlla kon xus min ya na jàpp jóge ci man doona suxtin ci lu ànd ak benn mer leer min ko jóge ci yaw yàlla yow yàlla mi nga xam yaay aji dëgëral sab jaam yaay aji taxawal sab jaam yow yàlla wommatal nga ma mboolem lu ma doon sàkku bi xayri kasbin ilal jannaati yàlla ci lu àndut ak may fàggul sama bopp dara ba keroog may tàbbi aljanna aw sartali waa yow yàlla mi nga xam ni daal yaay may wommatal yaa tax ma jot mboolem samay njëg ci lu dul coono yow yàlla moomu àggale nga ma ci sa jëmm lakkal wu la si lii baana yàlla ñeel na la nag ak am goo xam ni sa existence goo xam dafa feeñ fàng ci man sëñ Tuubaa yaa maa judut alniya daaray ni muhtaliyan yow yàlla mi nga xam yaay aji màgg maa ngi lay te nga aji yëkkati sama lépp àdduna ak alaaxira ci lu àndut ak nag benn pexe wala benn naw sama jëf wala aaw yaa waaye du jàlliya daaray ni munfaridan nee na yow yàlla mi nga xamante ni yaay aji kenn nga xam da ngaa wéet ci sa nguur gi mal mu naa bi asisin min ka yàlla nang ma defal sama mébét ci àndaaleeg sak tedde nga gu bàyyi koo ci yow yàlla lakkal tijaay bi maa lixtiira yaa sama di ñeel na la sama wéeru ci yow laa wéeru yow yàlla yaa may tànnal sama lépp yow mi ñëpp jublu ci aajo bisran li jumlati man ahbab ahbabta yàllaaw yaa may tànnal sama mbégte ci mboolem li nga xam ni moom nga sopp yow yàlla ardayta yaa xaadirul maxsoola mundabian yow yàlla yaay ki nga xam ne yaa ma alagal mboolem koo xamante ni nii ku yées la yaama ko alagal ba mu ba mu jiñu ilaa siwaana laka taxmiidu yàlla ba mu jëm ci feneen fudul ñun kon ñeel na la sunu ngërëm yow yàlla rasaltani la jata yananta muxtadiran yow yàlla wërsëgal nga ma ci aj màkka gu leer nañi taxañal ma lépp ci lu gaaw a gaaw a gaaw yow yàlla mi aji dogal lu la neex mal jiwaari wa sawrin fiika yàlla defal nga ma tam ma mel ni ku dëkk ak yanant bi alayhi salaatu wasalaam defal nga ma mel ni ku koy ziyaar ci waxtu wu nekk muqaddim muqaddim ni una wa xadam yow yàlla mi aji jiital na ma jiital fii ci àdduna ak ëllëg ca yomal xiyam ala kadirin min al yàlla ci kaw mboolem sa tànneef yi nga tànn ponkal yépp naa leen jiitu ca yomal xiyam antal muwaxira sabtali daawa ma daw yow yàlla mi nga xam yaay aji yeexal tam ko la neex maa ngi lay ñaan nag ma dindil samay noon ñu dem ba faw ñu jëm ci feneen fudul ñun àndaaleeg sa gecce te sa gàcc gàcc gu ñuy am ñoom àdduna ak alaaxira samay noon yow yàlla mi aji nag jiitu di aji kenn di aji wéet ci lépp maa ngi lay ñaan nga defal ma fii ak ëllëg fi saabiqiina bi fadlil minka yàlla ma bokk ca way jiitu ña eh, ci sa ngëneel gu jógee ci yow yàlla yaa xiru jël ya daara ni saaru tabin yow yàlla mi nga xam ni nag yaay aji eh, jiitu waaye di aji tamit mujj ci lépp yow yàlla moomu laay wax ni la nag ma defal àdduna ak àllaaxira daraja wasabi umri ilal jannaati yàlla yow yàlla mi jiital tey mujjee maa ngi lay ñaan nga defal ma daraja te nga sellal sama dund ba keroog biir aljanna yaa yow yàlla mi aji feeñ ci lépp maa ngi lay ñaan na nga ma wërsëgal ci mboolem yi may mébét àndaaleeg ma di woy gërëm anni wa asir bi al quraan ginnaaw boo xamee ni gërëm nga ma te nanga ma feeñalal sa alquran ji ma ko yow yàlla ya baatinul suxni al asraar asaminanin yow yàlla mi aji nëbbu lépp ni nga nekkee aju feeñ maa ngi lay ñaan nga wërsëgal ma say secret ma nekk boroomu kóolute wajal fuadi ya sarfa sikri yàllaaw ma nekk boroomu xéewal kon te nga defal ma sama xol bi na nekk nag dencukaayu sa tur wi ñuy tuddi alquran habib yow yàlla nag maa ngi lay ñaan ci sa ngëneel yow mi méngoo sama lépp na ma àggale ci sa ngëneel man walayta yàlla nga defal ma nag ngën gi mindeef mu nekk sama jokk waay jëm si ci yow yàlla sama borom way nakal mu taali suqi daakaman yow yàlla mi nga xam yaay aji kawel ci lu la neex di aji kawe ci lépp maa ngi lay ñaan nga wommatal ma samay noonu ilaa si waa xas di durri dahra yàlla ñu jëm ci feneen fu dul jublu ma ànd ak seen lor giiru dund yow yàlla wasi wamaalik waatix duna masadatin yow yàlla mi nga xam ni koo yaatalal mbiram mu yaatu maa ngi yaatalal ma sama mbir yow yàlla ci lu ànd ak benn lor wali sajib daawati yaa barru yàllaw maa ngi lay ñaan tam nga wuyu ma ci sama ñaan jii ma lay ñaan yow mi aji baax yow yàlla nee na nag eh, maa ngi ñaan yow yàlla nga nangu sama tuub ci mbooleem samay bàkkaar nga effacel ma ko sellal nga sama lépp yow yàlla mi wuyu jaam bala woo ci tuub anta lazi min idaal islaami muntaqimun yow yàlla mi nga xam ni noonu lislaam bi ëllëg yaay fayu ci ñoom walin taxamta bi ma lixtarta yàlla maa ngi lay ñaan nga fayul ma ca na ko taamoo yow yàlla talafawu la si anni yow yàlla miy jéllalee ko jéggal ci lu la neex maa ngi ñaan nga jéggal ma ibqaahi ay bin aday talkul la yàlla mbooleem loo xam ne dese woon naa ko ci ay sikk ak ayib te nga jubal sama lépp yow yàlla yow yàlla yaay aji ñeewantal ji yërëmee ci sa jaam yëpp te jàkkaarloo ak sa yërmande wala tuwajihu lil a yàlla maa ngi lay ñaan yàlla bu ma dëgmal samay noon yow yàlla yaa maalikal mulki lii wa saxta duuna jawan yow yàlla mi nga xam ne yaay buuru buur ñi yaa ma yaatalan ci lu ànd ak benn jàqare nag fil mulki wal malakooti dara yàlla mulkook malakoot ñaari pays lañ yoo xam ni bële la sunu borom noote bële malaaka not ko ñaari yëpp tàggatal nga lool ci man fu ma ci bëgg a dem dem sans problème giiru dund yow yàlla yasal jalaali wasal ikraami habli yama yow yàlla mi boroom màgg tey boroom tedd nge maa ngi lay ñaan nga may ma lixtarta dunya wa uxra minka yàlla la nga xam ni moom nga ma tànnal àdduna ak àllaaxira jóge ci yow yàlla xudduliya yaa muxsitil matlubu ay sungara yow yàlla mi nga xam ni nag yaay séddale di joxe mboolem li nga xam ni mooy li ñuy sàkku xilan wa iban ma ko fi gisee rek maa ngi lay ñaan kon nga sédd ma ci def ma nag may sab xarit di sab soppe àndaaleeg di am say ngërëm yaa jaamiuñ maliyal axraada murtaliyan yow yàlla mii mi aji boole maa ngi lay ñaan nga xam lu la neex nga boole ko sama diggante ak ak ak ak ak ak mbooleem yi may xayma mi nga gaaral na nga ma defal may aji gërëm ani bi ni ko leefil jami yàllaaw may aji gërëm ci yow ngay aji gërëm ci man àndaaleeg sag nekk goo nekk di ma ñeel mbooleem ci mbir yi andal xaniyu lazi laa yantami xaradu yow yaay aji koomal ji nga xam ne yow yàlla déet ñu lay askanal nag ci dégg nga lenn loo xam tële nga ko ci wàllu xeetu gaaral maa ngi lay ñaan nga jox ma mboolem li ma aajowoo jëm si ci yow yàlla. maa ngi ñaan nga woomalal ma yow yàlla mi aji woom ji ci lu dul sabab. maa ngi ñaan nga nekkal ma ci sa ngëneel ba faw yow yàlla. innakal yow yàlla mi nga xam ne yaa ma may yow aji maye ji mboole mébétu gaa yu tedd ya kabaytani fegal nga ma mboolem samay noon yow yàlla manata yaa maanu la min xibali yow yàlla mi aji tere lu la neex tere nga lépp lu warul mu jëm si di ma dëgmal tuajuli masa yàlla te dootuma dëgmal mukk lu ñaaw yow yàlla yaa ma defal loolu tere nga yow yàlla mi aji lor lu la neex tere nga ma lépp luy lore ba du jëm ci sama wàll fii ba àddunay tukki kon bu ma dëgmal mukk ay xeeti lor yu ci doon yow yàlla maa ngi lay ñaan yow yàlla yow mi nga xam yaa ma wommatal ci bépp mbir rek njariñ la nga xam ni mooy njariñ la cay teral yow yàlla mi aji jariñ nga xam ne yaa jariñ am ak ngëm yàlla naarta yaa leeral nga yow yàlla mi aji leeral sama lépp aji sellal sama lépp ba faw kabaytani sulamal asyaa yàlla fegal nga ma fegal nga ma lëndamaayu yawarul yëpp ci mbir yi wala tooñ yëpp ba ba dëgmalatuma yow yàlla xat xutali min ka yaa haadi daayata man nee na ko yow yàlla wommatal nga ma yow mi aji jubal tey aji gindi wommatal nga ma defal ma ak njub xasabul mustafa al njubug gaa nga xam ni nag ñoo gunge woon yanant bi ànd ak moom mii ku ñu tànn moom yanant bi alayhi salaatu wasalaam antal badiu la si baanat badaayo yow yàlla yaay aji fent ji yaay aji sos ji nga xamante ni feeñ na fent gi nga fent àdduna maa ngi lay ñaan nga wommatal ma ay xeeti fent yëpp àndaale sa yool yow yàlla. li safi umri yaa baaxi bi xayri ridan yow yàlla yàlla nga ma sellalal sama dund yow mi aji des ma àndaaleeg sa xéewal ak sa ngërëm. wal numkini bi kitaabilaa yàlla. maa ngi ñaan nga desalal ma comme ni nga desale alxuraanul karim mu fiy des na sama lépp des ci àdduna. li jumlata maa li xtarta min minanin mu ne yow yàlla wommatal nga ma mboolem li nga ma tànnal ci xeeti anwaari ma mel ni maayu dono yi mboolem ñi ñuy donn ca way faatu ya yàlla defal nga ma ko. anta rasidul asi xatxutali rasadan. yow yàlla yaay aji jubal ji nga xamante ni yaa ma wommatal sa njub. fii kulli sahin ma tafsiri yàlla. ci bépp mbir àndaaleeg sa mbégte yow yàlla. anta yàlla mi nga xam yaay aji muñaakoon ji nga xam ni jubale nga sak pay. jubale nga sag pay jubale ak njëg koo xamante ni mooy njëgu mbooleem li nga xam dañaloon nga ko ci nga xamante ni nii euh, euh, euh, mooy yi ma jaayante woon ak yow yàlla subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin jërëjëf sëñ Ablaye jàpp naa na ñiy seetaan ñu ngeeg seen ik fin yi ñu ngi doon topp ñoom it jataay bi